te xeet yi jiitu woon mooy ñi gëmul yàlla yonent bi fu leen tuddee woon xeet yi jiitu woon rek mooy ñi nga xam ne wax yu bu bàyyeekoo ci yàlla wàccul ñëw ci ñoom jamono ji tey mooy ñi gëmul lislaam mu ne nga leen jege ñeme leen boole ci ñeme leen yéen jullit ñeme leen ñeme giñ leen ñeme dafay mel ni ñu nu woo ne leen kaay leen lekk tegal leen ndab ci taabal ji ni ñuy ñemee lekk ga duñ ko daw mu ne noonu la noonu lislaam yi di leen ñemee yéen ëllëg bi mu wax loolu loolu amagul de démb benn yéefar ñemewul woon jullit ndax lan muhammadur rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkufaari ruhamaa baynahum ndax dund dund yéefar du ko ñeme ndax day tàng jër ci kaw yéefar bi kan lay nooy ci moom mooy ki gëmut rasulullah wala saxaaba yi bi mu leen waxee loolu ñu jaaxle ne ko loolu nan la mën a nekkee amin xillatin binaa yawma isin ndax dañoo néew boobu bareetuñu yeneen ci bi ne leen déedéet antum yawma isin kasir da ngeen di bari lool waaye ni ngeen di bari ngeen di ñàkkee solo da ngeen di ñàkk solo ñàkk solo ba mel ne bu tawee ndox mi di wal bant yay nekk ci kaw ndox maak puurit ma mu ne noonu ngeen di mel noonu ngeen di ñàkkee solo ak seen bariwaay ci ngay dugg cim réew ñu ne la quatre-vingt-quinze pour cent jullit a fa nekk ndeysaan te amuñ fa baat quatre-vingt-quinze pour cent jullit ah ñu xëy ne dañuy am bërëb yu ñuy tere muuraay te jàmm am waaye ñoo raw ti ci ñàkk solo puuritum taw quatre-vingt-quinze pour cent koñ buñ fi samp baar waa koñ ba mënuñ ci dara te ñoom ñëpp ay jullit lañu kenn waa jugee ci àll ba samp baara mënuñ ci dara bant yay topp ndox ma bu wal mi ñëwee puurit ma yeneen ci bi nee na ngeen di mel bu boobaa mu ne nag tuntadaxu dañuy noot dañuy nocci dañuy rocci almahabatu ak tëy wala ak ragal min qulubi aduwikum ci seen xolu noon yi maanaam seen noon yi yéen jullit ñi bu boobaa dañuy nocc ragal gi ñu leen ragaloon ci seen xol kenn dootu leen ragalati duñ leen faale sax mu ne lan yéen boobaa seen xol yi yéen jullit ñi lan moo ci ne wa yujaalu fi qulubikumul wahn ñu ne fay seen xol ak doye al wahn ñu ne ko lan mooy wahn mu ne mooy bëgg àdduna ak ragal bee yéefar yi bu ñu demee ba ñeme leen ragalatuñu leen yéen doyadi mooy nekk ci seen xol yi ban doyadi mooy yéen ñëpp àdduna ngeen bëgg kenn bëggatu ci dee xolal démb saxaaba yi li tax kenn yebu leen noonu mooy àdduna dañ ko jëloon teg ko ci seen ginnaaw jël dee ne bu dee taxawee pare nañu dee waaye diine kenn du ko laal tey benn jullit wala boobu bariwut kenn farewul pour joxe bakkanam pour lislaam bu ko dara laal bu ko dara la tey nañu woote fi benn marche rek ne dañoo bëgg légaliser ngóor jigéen Sénégal dañoo bëgg jigéen ñi ñu jox carte ñuy jaay seen bopp na dakk nga woote marche benn benn fay teew te benn benn yi bu ñuy sànni grenade ñëpp fëx daw waxuma dugg kaso de mais grenade sax ragal nañ ko pour défendre seen pas-pas yonent bi mu ne seen xol yi tiitaange lañ ci dugal ndax kenn dootul ñemee ti te ñëpp bëgg àdduna kenn ku nekk toog ci magasin am di jaay moo ko gënal mu génn dem défendre benn cause l'islam benn bénéfice bu muy gañee ci marchandise am benn ngoon benn chiffre d'affaires am koo ñàkk ngir lan dafa bëgg àdduna ragal dee tey waxuñu nee de waaye tey nañ taxaw ñun ñëpp ñu tëj ñu ci kaso bi mais mbot gi fi nekk moom duñ ko nangu ñu bari ne ah jaruñ ko nañ bàyyi noonu rek yàlla baax na yàlla dana ko régleel boppam yàlla dana ko saafara te sàcc bu dugg sa kër doona yàlla dana ko régleel boppam da nga jub mu rey la wala nga rey kon bëgg àdduna ak ragal dee moo fi nekk xadis boobu ahmad moo ko soloo ak abu daawud ci wéeruwaay bu wéer mu ne li ñuy jëlee ci xadis bi mooy bëgg àdduna ak ragal dee hiya sababun li wa musibatin waqaat fi l wa ma usibat bi ila natijatun li dunubi wal wa natijatun li xubbiha li wa karahiyatuha lil mu ne résultat bi gis nañ ko ñun ñëpp islam bi yëpp ci jikko ak seen noon jekku leen ba di leen xoolloo fu leen neex loi buñ leen voteloo ñu voté ko luñ leen bañloo ñu bañ ko ñu leen nanguloo ñu nangu ko mu ne résultat bi mi ngi nii ñëpp teg nañ ci seen bët dara taxul lu dul ragal gu ñu ragal dee ak bëgg gu ñu bëgg àdduna doye di gi nu nekkee bàkkaar yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy toggoo moo tax amatuñu doole ak lan mooy bëgg àdduna te ragal kenn ku nekk yaa ngi ut mbub mu rafet oto bu rafet kër gu rafet téléphone bu cher yoo la yitteel te yooyu noonu lislaam yi da fexe nañ ba téye ko ci seen loxo bu fekkee yére bu rafet dong la yitteel ci àdduna kër gu rafet oto bu rafet téléphone bu cher pare nañu pour jox la ko te sa diine moom bu fekkee pare nga pour ñàkk ko rek kaay ñàkkal sa diine ñu jox la yooyu yàqute jikko yi ci bari lii moo ko indi mooy bëgg àdduna ak ragal bi kenn ku nekk lii tax sa biir dara dugg ca nga am foo wéer sa ginnaaw am loo fajee sa soxla bu fekkee yooyu daal mi ngi am amatul problème nañu màtt diine nañ ko xusi nañ ko kaata nañ ko gaj nañ ko gor sa yonew yàlla baax na rek waaye sa wàllu àdduna doo ci dégg mukk yàlla baax na kenn du tëdd këram naan yàlla baax na dana ma jox lu ma lekk da nga xëy uti loo def ci sa kol da nga xëy uti loo teg ci sa yaram da xëy uti foo wéer sa ginnaaw waaye diine moom nga ne ah yàlla baax na yàlla danañu comprendre yàlla xol bu rafet rek lay fay ah waaye sàmm bu doon fay xol bu rafet fekk la sa kër jox la dépense ni nga koy waxee mu ne beneen bi mooy def noo yóbbee bëgg àdduna dem ba sax ci nun ba am ay reen bëgg àdduna gi léegi dafa sax ci nun ba am ay reen maanaam gëmloon nañu ñu ne mënu leen a tedd sans xaalis ba neexul a expliquer sax léegi nit ndax xoj guñ ñu xoj waaw programme la bu ñu teg bu yàgg pour yow jullit bi boo waajul suñ la yéegalee ba ci niveau boobu rek yàq sa diine tey indi nañ ñu Ndakaaru jëlal la appartement xëccal la courant xëccal la ndox ngay soxla téléphone te yooyu yëpp xaalis a koy def pareetoo dellu dëkk ba seen dëkku cosaan ba seen këru famille ba di rooti ca teen ba di taxani ca àll ba bàyyi fay courant ndox déedéet pareetoo ndax lan léegi dañ lay yóbbu ci niveau waratoo wàcc ci léegi nag pour nga gérer fi nga tollu ci niveau léegi nag dangay ngay jaar ci yoon wu baax wi seere ko wala buntu mbon gi mooy ubbeeku pour nga gérer ko ñaata nit tey seen appartement seen doom ju jigéen moo koy fay te liggéeyul ñaata kër tey doom ju jigéen ja mooy joxe dépense te amul salaire bu ko ko may di fay ndox di fay courant te amul salaire bu ko ko may doom ju jigéen ji fay ndox di fay courant te amul salaire bu ko ko may moo lay envoyé crédit ci sa téléphone bi ngay wootee di la jëndal connexion te salaire am mayewu ko sa doom ji moo xam ju góor ji wala ju jigéen ji nga sëgg ci ah di ko sant di ko gërëm maa ngi lay ñaanal te doom xam ne ne lii mu lay jox liggéeyu ko waaye bu buñ lay yéegal ci wàllu dund mënatoo wàcc moo tax da nga koy gérer ak anam goo ko mën ci gérer mooy mënatoo génn ci appartement bi yaa ngi luye woon ci appartement yu seeree cent cinquante mille mënatoo dellu ci benn appartement wu vingt cinq mille te banlieue ba mënatoo faa dellu ndax lan da jàpp ne léegi sa garaat dafa wàcc ndax lan sa xol bi bëgg àdduna def cee sax ba am ci reen te mënatoo buddi reen bu njëkk nit daan na nekk ci benn appartement wala ci benn koñ wala ci lenn benn situation dund attan ko di ko gérer dem ba attanatu ko mu rek ci la dellu zéro nañu coupé ndoxam nañu coupé courant courant bi bu mu coupé waaye sa digganteeg sa borom na coupé pare nga pour def lu mel noonu ñaata jullit tey ñoo yegg ci niveau boobu noonu li inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaata pare bu bees ko paase ko ko te doo ci am benn complexe ñaata pare pour loolu ñu ci bari mënatuñu ko ndax bëgg àdduna ci seen xol bi yegg na foo xam ne mënatuñoo budde reen ñaataa amoon oto xëy na sa situation maytu la nga am oto da war a jaay oto bi pour fajee ko say soxla dimbalee ci say waajur waaye déedéet da ngay préféré oto ba ngay ñaani ay bon pour di sol gasoil ak essence ndax ñëpp xam nañ ne diw sàngam am na oto mën a toogoo ñàkk. pourquoi nga jaay oto ba dem di fay ticket ci bus yi xaw ma yéen ak may déggam déet ah ma yéen may déggam déet maanaam système mu dund ñu yéegal ba nga toog ci kaw. wallaahi bu la yàlla dimbalewul fekk am pas-pas bu dëgër bu sax ci sa xol heure buñ ne la wàccal nga yàq sa diir pour wàcc pour bañ a wàcc ñu ci bëri tey te ay jigéen dem nañ doone ay lesbienne ñu ci bëri ci ay góor dem nañ doone ay góor jigéen góor ak jigéen ñenn ñi doone ay franc te lan moo leen ko indil mooy sa niveau dund bi yéeg kaay ñu yokk ko mais dootoo wàccati kaay nangu pour ñu lay jox looy fayee sa kër weer wu nekk kaay sax ñu jox la kër fay sa kër boo yeggee ci yenn yi ci xeetu mbon looloo gën a gàtt luñ lay defal mais kaay ñu jox la appartement kaay ñu jox la kër kaay ñu jox la oto kaay ñu jox la liggéey kaay ñu jox la salaire weer wu dee mais sa diine jaay ko sa ngoor jaay ko nga préféré jaay sa diine sa jaay jaay sa ngoor pour lan alalu àdduna juñ lay jox